mbokki Sénégal mbokki réew mi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 ni mu gën a yaatoo ci journal bi ñaari mbër yi ana moo ci ëpp sens ci wàllu xeex ci wàllu technique ci wàllu staff moo waral xët wu njëkk wa journal sunu làmb ba bind Ngagne Diagne décortique le choc des gladiateurs moom sunu papa Ngagne Diagne na mu ko tënke moo ils ne sont pas de faits bagarreurs ñoom ñaar nekkuñu ay xeexkat yu seeni xeex bënn rax ca dolli ne rëg-rëg ay une de technique la mu ca toftal mooy guy gi a perdu mor fadam la tête pensante bu jàppante ba accrochage ba bëre ba loolee lay sàkku bu dee rëg-rëg moom it ku ko xam ci bëre nga ko xamee wante nag bu nu yeboo def attention ndax mu ngi pratiquer MMA te foofee mu nga fay xeex mu nga fay jàng xeex te loolee mën na koo bëggloo xeex bi ba bu ñëwee di xeex bu dee ci wàllu technique la mu xam ko ci làmb mbër la mu mën a attaquer mën a défendre ci wàllum bëre jàppante foo ko woo wuyu la bu dee ci wàllu staff la mu xam le mooy guy gi ki gënoon a seer mu xam le mooy guy gi mës sa manqué force bu dee rëg-rëg moom kookee doole ji yàlla da koo mooñaaleeg moom ci wàllu mystique mu ne guy gi du négliger dara lépp lu mu jàpp ne ci wàllu mystique mën na koo may ndam mu nga ca bu dee rëg-rëg moom dañ koo blindé mystiquement moom lépp bu màgg ci ay séeréer la moo tax ay mbiram saf bu nu jàllee ca Pape Demba Kane MMA Sénégal moom la mu xam le mooy nous sommes très fiers de rëg-rëg sant nañu ko gërëm nañu ko sunu xol sedd na ci moom la waral sant gaa mooy kàddu ya mu yëkkati ci sunu làmb la mu mooy il n'est pas dit que forcément vous êtes un bon lutteur nekk mbër mu xarañ ci làmb ji taxul pour ndax fi mu toll nii am na bëgg-bëgg bi am na physique bi am na mental bi ngir mën a doon champion fi mu teg tànkam bu ko teggiwu dana dooni champion d'Afrique ki fi nekkoon champion d'Afrique te wuy ji boroomam ni ki ajuma moom sunu papa booy bambara tafa booy bambara dellu na ci nim gën yaatoo ci ay fàttali moom li ko gën a ci papaam joojee mooy turam bi mu am ci làmb ji ci dara waralu ko lu dul moom je me suis fait un nom dans l'arène grâce à lui loolee la xamle bu ma lamb ji xamee tey ba ñëpp naan Tafa Boy Bambara moom moo ko waral rax ca dolli ne sama papa Boy Bambara moom mais man Tafa man maa naan maa ñàkk joué na ci sama carrière lu ma dootul fàtte ba mukk defal na ma ci lamb lu ma dootul fàtte ba mukk yóbbu na ma fu ma yaakaaru toon ni danaa fa àgg ci lamb waaye li may def rek mooy ñaanal ko sunu borom oyofal suuf ci kawam ku dem ca sunu lamb tey da nga fa fekk sunu papa commandant Thioune ma fi nekkoon ancien responsable sécurité CNG ma fi nekkoon responsable sécurité CNG moom ñëw naag ñoom ci waxtaan wu yaatu ci lan mooy chargé de sécurité ak naka la ko téyee woon lamb ji yéex ubbi it ñëw na ci ci ni mu gën a yaatoo mbiri huis it waxtaan na ca waxtaan wu yaatu ci jàpp ne lu mën nekk la huis clos partiel wala huis buñ ci am mën nañ caa dem jërë ngeen jëf mbokk yi li li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah